billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar dina wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaanal cheikh mouhamadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naa la lislaam yëpp màggale ko ànd kook njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi euh, mbokk yi ni seetaan noo ngi fii ci kër Serigne Fallou gala Syll ci bis bii nga xam ne mooy màggalu Daaru Salaam di bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba ñëwoon seet si woon taalibeem ba mu gërëm seet si woon mbokkam ma rakkam ja maam Cheikh Anta Gaawaan borom pàkk bii di maam Cheikh Gaawaan lépp lu mu am Serigne Touba ku ko defal mu toppoon sëriñ Touba ci léppam jaay lam bokk ak moom jënde lépp ak taalibe waaye bari ay xas ci sëriñ bi lool nag bari ci it ay jagle bokk sëriñ bii bi lépp it waaye kenn ku ne xam ne ne Sëñ Touba sédd na ko cër yu yaatu cër yu bari yoo xam ne waxtu nekk cër yooyu day gën di ràññiku pàkk bii nu nekk di Daaru Salaam béréb la boo xam ne sëriñ bi moo ko sancal boppam mën nañu ne. mooy pàkk bi sëñ bi jëkk a sanc ci moomeelu boppam ndax béréb ya ko jiitu yëpp day fekk ay maamam sancoon ko mu ñëw ànd ak ñoom loola tàmbalee ko ca Mbàkke gi mu feeñe waaye fa mu jaaroon ci ay béréb yëpp waaye dëkk bii nag di Daaru Salaam mu sancoon ko ci desesin te moo di 1304 ci weeru safar nekk fi ñaari at di fi tërbiya mag ñi di leen fi yar dëkk boo xam ne rek lam ci wax rabbi biha min al wara maa laa yaa xayra man rabba wa xayra man waab di dëkk boo xam ne it daana wax ne boo demee ci xasidaam googu tudd duaawul kabir day wax ne Touba ak Daaru Salaam li tax ñu gënal ma ci dëkk yi mooy sellug yéene yi li ma ko sance te moo di jaamu yàlla képp ak tànn gi ma ko yàlla tànnal dana sëncu ma ko ngir cosaan yu jëkk ya lu mel ni yaxantu wala sàmm wala nangam waaye dama ko sanc ngir jaamu yàlla képp kon loolu rek misaal la ci muy dëkk boo xam ne it sëriñ bi dana ko lëkkale lu bari bu tuddee Touba tudd dëkkam bii di Daaru Salaam muy dëkk boo xam ne nag li ko sëriñ bi sañcee it mbooloo mi di bàyyi ko fu nekk di ko fi fekk mu di ci yar aw nit di Cheikh Ibrahima Diop almachar di wax ne nit ñi di bàyyi koo wet gu nekk mel ni Makka nañ koy dëgmale ca Kaaba ga nee na noonu la buntu këram bi meloon benn kuy sakku ci xam-xam ba gindiku wala kuy sakku alal waaye ku ma sa ñëw fi moom mu gindi la ci te tawféex ji ci jëkk mooy dëkk bii bi muy sanc bi mu fiy bàyyikoo di sanc dëkkam bee di Touba daf ko rafaatale rakkam jii di seex Cheikh Sidi Mokhtar maam Cheikh Anta Gaawaan jox ko dëkk bi waaye boole ci nag eh, juróom-ñeent fukki donga ak juróom loola kon wa wane na ne aw melokaan la woo xam ne euh, jagleel na ko maam Cheikh Anta Gaawaan loolu it tax na kon koo xam ne ci fukki at juróom-ñett nga cheikh amub dëkk mbooloo topp la loola wane na junj bu sëriñ Touba junj jëmee ko ci moom waaye wane na it misaal mu sëriñ Touba misaal jëmee ci moom loola it nag daf ko tërbiye tërbiye gu wér ndax yooyu sëriñ Moussa ko doon lim naan mas na ko dikke bis benn bu ci nekk lam koy won misaal moomu lay joxe. wan ko ne ko bu la neexee man nga maa ñaas may sa bambara ngir wane ne yaay sama sang man nga maa jaay ni kuy jaay ab jaamam jël njëgga ndax wane ne yow rek yaay gor lu nekk misaale na ko Serigne Touba ci wane ne ak féete suuf la ci jublu ak wane ne lépp Serigne Touba la loola it sëriñ Moussa Ka wax na ko wax ne mooy xalangu googu mu doon xalangu ànd ak sëriñ bi ngàbbal ko beram di dox waaye ñax mi tooy xipp akub lay ay xoolul na yére yam sol na mu mel waaye kit ànd ak moom la xool muy Serigne Touba dafa daal di këpp ci suuf di bërëngu ay yéreem di tooy ngir mu bañ tànk Serigne bi tooy ca lay ba loolu nag wane na yitte joo xam ne def na ko waaye lu mas a amit jébbal na ko Serigne Touba lu mas a doon bëggu Serigne Touba yi daf koy dàkk mas benn yoon bu mu cee sikki sakk loolu misaal rek bi fi si Sidiye ñëwee ca njaareem te booba muy laaj addi rasulullahi fanweeri junni keroog sëñ Touba maam Cheikh Anta mii la woo na ko joxeel sas wi te bul dem ci banque waaye fa mu toog la mu njëkk def mooy génne fukki junni ak juróom joxe daal di yëkkatiwaat door a yónnee nag indiwaat yeneen lu mot li junni ye nga xam da caa ñaraas sax dolli ko ci keroog la ko sëñ bi nag dinaa la jox darajay Cheikh Sidil Mokhtar loolu kon sëñ bi da ko donnaloo te jëfam rek moo ko mayoon loolu boole na takkaayu soxna Anta Ndiaye ak fetal lépp jaay ngi wutal Sëriñ Tuubaa ndawal kon lu ma sa doon bëggu Serigne Touba rek Cheikh Anta ca la nekkoon. ba bi sëriñ bi nekkee ci géej gi te am bis ku jógee Gabon jóge yomba ñëw wax na gis na sëñ bi Mayomba jóge Congo ñëw na gis na sëñ bi Mayomba ba mu waxee loola rek maam Cheikh Anta dafa daal tàggook sagoom sàkk ndaw yokk koy ay addiye mu yët ko Serigne Touba Gabon ca la ko bindee woon sax doon sàkku ci moom tàggu ko ndigalul dem siyaare ji Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ca ko sëñ bi waxee na ko mën ngaa néggandiku te defaloon ko dénkaanam boobee nga xam da koo dénkoon muy waxal xafiisu naj la cheikh nga xam ne loolu sëñ Tuubaa ko ko dénk loo woon ko ndax xam na boobu li waroon a ñëw lim doon waaye teewul dafa daa def waajtaayu boppam nag bàyyi ko ci réew mi dam fekk Sëriñ Tuubaa ca Gabon loolu melokaan la woo xam ne euh, joxe na ko waaye melokaan la woo xam ne jëfe na ko mës a ci dara ci alalam mës a ci dara ci jëmmam bëggu Sëriñ Tuubaa rek daan dakk ci ay guddeem ak melawam mu am taw féexit ba mu fekkee sëriñ bi xasaa yi di sëriñ bi jëkkoon a mool jëkkoon a taalif te nekkoon ca géej ga taalifoon ko fa yooyee la ko yónnee jox ko ko nga xam ne moom moo ko jëkk a dajale kon loola it nekk ci taw féexam sëñ bi it dal ko ci dal yu rëy ak melokaan yu rëy ak pay yu rëy ci tagg yonente bii mu mool dajale ko loola kon jagleel la koo xam ne suñu borom jagleel na ko eh, maam Cheikh Anta Gaawaan Cheikh Sidil Muxtaar mu nekkoon koo xam ne it noonu la daan taxawee ci biir réew mi nekkoon citoyen boo xam ne da nga naan modèle la référence la ndax lislaam ñaata kenuy lislaam la joyante ci réew mi ñaata relation la taxawal ci ñooñ lislaam waaye ñooñ adduna yi nañ leen daan dimbalee nekk koo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne euh, jaam bi feek mi ngi ci dimbale moroomam jaamam yàlla di ko dimbale loola ca la nekkoon ndax koo xam ne dañuy wax ne ba topp ceeb mas na koo jël séddale ko réew mi te boobu a ngi ci woon te amul kuñ cay ràññee ak kuñ ràññee waaye gaar boo dañu wàcce fa ay lim te ko séddale nit ñi mu def ko ngir jëm yàlla kon mel na ni loola jëfoon ngir yàlla rek a taxoon mu daan ko def waaye it koo xam ne fu mu mas a fekk ko yaxantu mu jël alalam jox la ngir jàppale la ca ngir sag yaxantu mën a taxaw waaye sag yaxantu mën a dëgër ba am na si ñoo xam ne sax mën nga ne ay om politique la ñu woon daana leen dimbale ci di leen lebal alal ñenn ñi daan ca fay seen i bor ñenn ñi mën caa lijjantiku mu nekkoon koo xam dafa nuru sëriñ bi ci ay mbir yu baree bari ba ci nattoom bii nga xam ne amoon na ko te demoon ci séegu nga xam ne loolu la muy tegtale ñaari nattu zahir yi ñaari nattu yi lim dajale muy zahir ak batin bu ci nekk boo ko xoolee day nuru nattu sëriñ bi ndax benn bu zahir bi mooy niti adduna benn bu batin bi mooy war a am lu mottali sëriñ bi ndax la koy firndeel mooy sëñ bi mas na koo jox mbubbam na ko mbub mii bis booy dem ci tukki ba na ko sol yóbbaale kon loolu sëñ bi waajaloon na ko ci xam ne am na lu a ñëw ci moom ci maam Cheikh Anta Gawane waaye mu boole muñ nga ak njàmbaar ga ak taxawaay ba ba tey lislaam bi yëpp foo tudd Sidi Anta Cheikh Anta Gawane ñëpp xam ko ci melokaanam ak jëfam waaye nekk koo xam ne it taxawaayu diineem yeneen kër yi di lislaam yëpp ay relation yu rafet la ci amoon ci jël alalam di fa joxe waaye ci ab taxawaay ñi mu bokkaloon Serigne Touba it noonu la meloon ak ñëpp moo xam ñi nga xam ne moom la bokk Serigne mbakkee Mor Anta Sali tàmbalee ca maam borom Cham mi nga xam ne dan sëñ Moussa Ka ba muy wax ne daana ko jox ay gëléem ak i xandi ndax mag la bàyyi la sëriñ la loolu kon daana taxawe noona noonu la meloon ci digganteem ak maam Thierno borom Daarul Moxti am na bi sax bi Cheikh Sidiye génnee àdduna sëñ Touba dane maam Cheikh Anta Gaawaan yaa maam Thierno dem leen ngeen topp la ca la dal asbaati maam Cheikh na ko ñaari kooy xajuñu ci lenn ndab mu ne ko yàlla boole seen i mbir nga xam ne loolu sëñ Touba ko wax nga xam ne loolu taxawaay bu rëy bi mu amoon ci melokaan woowu waxtu wu nekk jëf na ko loola nag tey jii di boo xam ne it bésub tawféex la ndax ba sëñ bi nekkee ca géej ga lay junj di wax ne lahu taala rujui min idaaya ila daari salaami lati tubuna bi tajjidi di wax sunu borom kat moom moom sama dellu ci réew ma waaye sama dëkk boobee di daaru salaam nga xam ne dees na ko yeesalaat keroog loolee ba muy war a ñibbisi da def istixaaraam ba mu ubbee kaamil ba lam yem walaahu yad'u ila daari salaam moo tax ba mu wàccee 11 novembre 1902 dem ndar def desarse sa jaar Sanosi fam jaar ci béréb yëpp ba ni fii ci dëkk bii di Daaru Salaam gane si fi maam Cheikh gan goo xam ne lépp lu dagan ci ab jullit war koo jëfandikoo maam Cheikh Anta Gaawaan defal na ko Serigne Touba. di ngan goo xam ne mën nga mooy ngan gi jëkk ci yoonu murit ci wu toll nii mu tolloon ci jëf ju mel nii cheikh yi daje fi njaboot gi daje fi ñëpp ñëw wuy si maam Cheikh di ko tëralal ba tëral ko nit ngir bëgg koo sant Serigne Touba. loola di lu rëy rëy lu yaatu loo xam ne misaal ma mu wane rek mooy bis bii tey kon bisub sant la ndax bu ñibbisi gi amutoon ngan gii du am te bu ngan gi amutoon kon kenn xamul li xew te lim àndaale ci sérité bi muy ñëw euh, mag ñu baax ñii di tagg Cheikh Ibrahima Diop day wax ne sëriñ bi ba mu nekkee ci liggéey bi ba yeggal bi muy ñibbisi àndaale na sérité boo xam ne nit du yaxantu ba am ko nit mënta aj makka ba am ko nit mënta jéggi ay dex ba am ko daan na lan la dikkee mu ne yërmande yàlla ju daj ñëpp xam ne laqad rajaxta bi ma lam yarjaxan nabihi sul hajji xes xaswi aw soo tajri min rafet yi wa jita rahmata rabbin la sharika lahu li zalimin waaqi sabqin wa muqtasidin kon loolee la indiloon adduna bi ñëpp teg ci seen bët ñëpp gis ko kon ndawi jamono nañ leen di nafar la dundug ñu baax ñii di leen ko fàttali ndax buñ ko defut ak yaafus lay jur mag ñi mën nga caa jànge tey yàlla rek lañ defoon seen joxoon seen bopp yàlla lañ wéeru woon sëñ Tuubaa yaakaaroon di ko liggéeyal waaye ku ma sa am yitte ñoo la koy fajal ndax ñoom amoon nañu ay sin ndax amoon nañ ay ay ay entreprise déedéet waaye nag dañoo nangu woon a liggéey te duñ yàq te nangoo jaamu yàlla yàlla féete leen fépp ci xéewal kaanu ibadan bi taatin rabbihimu wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati kon loola waral tey ji ñëw teew ci jataay bi waaye ànd ceeg sunu kilifa gu baax gii di sëriñ Xamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne kenn ku nekk xam na taxawaayam damay wax ne képp ku ko dégg wala nga xam ko benn ñu ne ma nga ca tool ya ca liggéey ba wala nga xam ko mi ngi ci yaaru xuddaam ngir taxawalal Serigne Touba sàmm ndonol Serigne bi. loola nag ak bëgg rek a koy waral te bëgg gin bëgg Serigne Touba moom sëñ bee wax ne yaakaar ki ma bëgg du tas ndax la ma yaakaar fa ka may yaakaar du tas loolu Sëñ Touba ko bind. rajaa u man ahabbani mu xaqaq inda alladi lii amali yu xaqiq wér na ne moom loola may na ko. kon bu nu amee tawféex yi def dara ba yàlla boole nag sang bu mag bii di sëñ Xamsatu Mbakke mu Cheikh Abdoul mu am yitteem wut ngërëm ba wut ngërëm di jot sàkku ngërëm ba sàkku ngërëm di jot. nga xam ne tey jii bari na koo xam la sëñ Tuubaa daan wax ne bari na ñooñu ay dàll laa leen solal waaye keppaar gën jëkk a jëkk a jot fa lañ ne faraañ nga xam ne jéggiwul benn jéego moom ker gën jëkk a jot rek fa lañ toog ferantulaay waaye moom lu mas a am ci ngërëm def na ko laxasaay ba tey jii jamono jii waxtu wu ne daj yu tayyiwul ci lépp luy setal yoon wi waaye doonu nag di ko wax waaye da caa boole ñaar li ñu tudde nasriya ak tatbiqe ni mu koy waxee noonu la koy pratiquer ci luy dundal yoon wi ci ngeme addiyee nangoo jëf kon sëriñ bi noo ngi lay sant baax Mbakke ci liggéey bu réy bii nga nu boole di sant sama nijaay jii nag sëñ Fallou Gala Sylla maa ngi koy sant moom itam mi ngi lay jottali ay kàddu cant ki ngërëm man nag li tax ma di ko sant 2003 la nu yàlla boole woon waaye fu jur di féete rek féete na ma ci ay xalaat ci ñaan ak jubbanti ak wéttali loola tax na yi ñu def ko sunu kilifa waxtu wu ne bu ñu ko jotee bu nu nekkoon ci ak jaaxle sax bu ñu ko wooyee mu tegaat ñu ci aw yoon lu baax ak ku baax ku mu xam boole na moom sama diggante yow ci moom mee la jaara loolu rek misaal la ci kon loolu maa ngi ko ciy sant bu baax maa ngi ko ciy gërëm bu baax ndax kat bu ko sooboon mu mën ne ndawi jamono naqare nañoo àndal ndax boo solee mbubb mu set rek nga faxasu jàpp nga ne lépp daje na fi yow waaye bañ salu ak bañ juum te waxtu wu ne mi ngi nuy soññ nanga bu ma ko déggaat ak loolu mooy dégg bu ma la ca dégg ak ni nga ko waxee ba ko ne waxeeti loolu ku la yéenewul jàmm yéenewul a ndam du la ko defal kon nag noo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sàkku nga dolli na ko ñaanal bu baax a baax ba taxawaay bi mu taxaw ak yéene jëm am jëpp màggale ko kon noo ngi jéggulu ci kaddu yi bu baax sëñ Fallou di sant sëñ Hamsatu bu baax a baax xam naa kon nu daaneel suñu kaddu euh, wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Gana ñu ngi lay nuyu la sant di la gërëm di rafetlu waxtaan wi itam waxtaan wi leer na nañ tege na ci xam-xam ak pasteur li nga wax leer na leer na ñëpp diggante sëñ Gaawane ak sëñ moom leer na ñëpp kon nag bi nga jotalee kàddu yi ba ñëpp dégg ko ñu ngi lay sant di la ci gërëm ñu ci ñaan saa borom ñu ngi lay nuyu ñëw nañ tey fii ci sa kër sëñ ta bañ xam naa walla ñàkk pexe ndax tey noo amoon mbokk moo xam day kenn ci ñun di sëñ maam Mor bu wàccoon liggéey ñu doon ko denc tey jii fa lañ xaw a yendu coono ba jàpp nu ndax mbooloo ma dafa bari wat ba yëg nañ coono ci suñu yaram waaye nag ni nga demee ci noonu moo tax ñu ñëw mënuñoo ñàkk ñëw xam naa nag bi ñëwee sa kër gi dañuy yéene waale dugg ci kër yi Daaru Salaam yëpp ndax benn la koo xamul noo koy def nam la a tax lu ma ne yaa nga ca bis bu ñu déggante ñaari yoon la ñetti yoon te liggéey bi ñu liggéey Sëñ Tuubaa noo ko ànd nga jàpp ci jàpp noo rafet rafet di ca xëy guddi di ca xëy ngoon ñu def Sëñ Tuubaa mooy suñu tool ñu ci xëy suba ngoon kon nag ñëw gi ñëw fii mënta ñàkk ndax ñu sëqatee ko waaye nag dañuy fopp si dub siyaare daxañ ko ci ñëw gi ñëw sa kër jàpp ni ñëw nañ ci kër yi Darou Salaam yëpp ndax dañ ne gannaaw Darou Salaam nga yaakaar àddina ak àllaaxira bu ma ñëwee coow bu ma demul seen kilifa du leen war a naqari du leen war a metti waaye li ma fa tey dem mooy ñàkk jot ak ak sonn ak guddee gi nii waaye loolu sama yéene mooy dem ci teewlu ci kër yëpp ndax ñëpp laa ko seq ak ñëpp samay xarit lañ ndax fii Darou Salaam dëkk sëñ Tuubaa waaye sëñ Abdou dafay am wàccuwaay bu rëy rëy relation boobu amoon ak sëñ Gaawaan am na si njabootu sëñ Ba goo xam ni doomu sëñ Gaawaan ñoo ko jur ñu bari xamuñu ko waaw yoroon na doomu sëñ Gaawaan moom sëñ Abdou Lahad nekkoon yoroon ko kàbb kay sëñ Mudu Maamun nag diggam ak sëñ Abdou Lahad rawati ci mooy def ci ñuy ay xarit yu yu xaritoo lool di ànd guddeeg bëccëg fu sëñ Mood Maamun am kër sëñu laat am na fa mu nekk ñuy doxal lool di ko rafetal ba sëñ Mood Maamun wàcc liggéey taaw loo sëñ Mood Roqee mu def xaritam di taalibeem di léppam kon bu ñëwee Daaru Salaam ñëw nañ fu ñu war a ñëw ñëw nañ suñ kër te sëñ laa lañ ñëw comme dafa gudd nag wax ji du du bari xanaa sant mbooloo mi rek ak ñaanal ñi fi teew ñëpp ak ñi bëggoon a teew te teewuñu saa borom faj seen aay def leen ay taalibe yu sëñ Tuubaa yu sëñ Tuubaa nangu seen seenu taalibe nangu seen pas-pas te làqal leen ko fa làq yëgul ñu ngi lay sant baax di la gërëm di la doole ñaan itam yàlla musal la ci lépp luy lore waaye xacc la lépp luy njaañ ba sa yéene ci sa jëmi bopp sëñ Tuubaa nga am ko sa yéene sa jëmi bopp itam nga am ko sëy na ci sa njaboot nga am ko te boole na ko ñun ñëpp nag ci barke Seexul Xadim barke sëñ Gaawaan barke sëñ Moodu Maamun barke sëñ Abdou Lahad wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu